biir réew mi journal bi nee na kaawo jamono ji moo am ci biir réew mi yëpp ndax bëri na ci ay magasin Auchan yoo dañu ko yàq-yaxeet mbooleem loo xam ne nekku na biir ñu daal koy jël yéene kaay gi nee ay méréke station essence yoo xam ne dañu koo taal am na nag ñenn ñoo xamante ni nee nañu jege nañu nguur gi maanaam seeni kër daan nañu koy saax-saaxee ndax kër njabootug Marième Faye Sall gi nekk ca Saint-Louis daan nañu koy saax-saaxee kër Antoine Diome ministre ñëpp daj nañu musiba ak mbabu ku mëniki démba permanence bu APR bi ci mbuur dañu ko saax-saaxe yéene kaay gi nee na en tout cas kasu bu mbuur ña nga xam ne ñoo nekkoon ca kasu ba ñooñee timit daanuñuy fippoo yéene kaay gi di Dakar Times nee na lii nga xamante ni moo xew ci réewum Sénégal jamono ci bay boo ñu jël si ay matukaay ndax réew maa ngi boy réew maa ngi tàkk te lii nga xam ne xew na ci réew mi moo gën a garaaw fuufa li nga xam ne moo xewoon 23 juin yéene kaay gi di Direct News nee na dëgg gi kay mooy njiitu réew di président Macky Sall moom ci boppam moo war a wax ngir nag dalal askanu Sénégal ngir nag rassurer leen te nag Macky Sall wërta yóbbante kàddoom kenn kenn wërta waxal Macky Sall ci mbir mi moo war a waxal boppam yéen a kaay gi di a nee ministre bi nga xam ne moom la dénk kaaraange réew mi ni ki wax na moom Antoine Diome daat nay wax ne lii nga xam ne moo am ci réew mi ay acte terroriste la ba li nga xam ne mooy dossier Ousmane Sonko a kaay gi nee na Félix Antoine Diome ma ngay wax mbiru terrorisme wax conspiration contre l'État ñoo xam ne dañoo jóg complot bëgg a daaneel nguura yéen a ba tey moom ministre Antoine Diome bi muy wax nee na Ousmane Sonko ci boppam ñu ko convoqué dafa lànk ba pare nag nee na Ousmane amul benn respect ci yi nga xam ne moo nekk ci réew mi yéen a kaay gi du l'observateur xëy ñu xibaar naan ñu am na benn agence yi seen boo xam ne loxo ba moo dem ab gërëm naan lacrymogène la doon dajji ngir sànni ko mbir mi explosé si loxom yéen a kaay gi du Sud Quotidien nee na ñi nga xamante ni ñooy ndaw ñi jamono ji ñoo moom mbedd mi ndaw ñu dem nañu ba nga xamante ni léeg sax dañuy ëpp ñi nga xam ne maanaam ñooy takk der yi Antoine Félix Diome journal bi nee na maanaam sortie bi nga xamante ni def na ko déclaration bi maanaam nag jëmul kër ndax ndax nag déclaration yi nga xam ne moom la ñu doon xaar ci ministre bi daala ministre bi waxul loola ndax nag déclaration bu tàng jër la def daala mel ni nag li nga xam ne mooy fitna ji daf koy gën di jafal journal bi di Sud Quotidien li mu gis mooy ant Diome juum na yéen a kaay gi dalee na manifestation yeeg yàq gi nga xam ne moo am ci réew ñi nga xam ne ñooy sàcc di agressé danañu leen wër danañu leen teg loxo danañu leen attee noonee la ko waxee yéen a kaay gi nee na Ousmane Sonko njiitul Pastef ni ki na li nga xam ne mooy déglu gi koo mujj dàq ba altine ji nga xam ne moom la ñu dëgmal ki nga xam ne mooy juge Samba Sall ni ki démb ci bureau am dafa lànkoon kandaare ne avocat yi Ousmane Sonko ñu dugg ci bureau bi jàppante bu rëy ni ki démb amoon na fa waaye nag doyen bi ubbi na beneen dossier ci Ousmane Sonko bay saako ci assemblée nationale ngir nag ñu di dindi malaanu kiiraayam yéen kay gi di wal fa jëre nee na en tout cas Sénégal yëngu na Ndakaaru njaay démb tàng na jër Thiès démb tàng na jër Mbàkke démb tàng na jër Ziguinchor démb tàng na jër école yi ak banque yi ak lu jëm ci wàllum njënd mi dara doxul ni ki Les Échos nee na am na benn banque boo xam ne dañu koo dajji banque Atlanta la jël fa lu toll ci deux cent millions yéen a kaay gi de Le Quotidien nee dina retirer li nga xam ne mooy agrément bu OSIWA OSIWA gi nga xam ne ñoom ñooy financé waa Y'en a marre yéen a kaay gi du Sud Quotidien nee na waa société bi ñoom nag daan nañuy ñaawlu bu baax a baax nervi yi nga xam ne ñoo ànd takk der yi di traqué ñi nga xam ne ñooy manifestant yi yéen a kaay gi di di Yoro la débuté nga xam ne jamono ji daf ci daal di ngoy ak conseil bi nga xam ne jox na ko ndaw ñi nga xam ne ñooy def acoustique nee leen dem leen ci école formation yi formé wu ba dëggal ci wàllu woowa thème yi nga xam ne moom lay waxtaane lu jëm ci wàllum valeur humaine loolu lépp wax na ko jafe-jafe yi nga xam ne musiciens yi am nañu ko ci coronavirus yéen kaay gii di sunu làmb nee soo moytuwul insécurité beeg bi nga xam ne am na ci réew mi dina yàq combat Eumeu Sène ak Lac de Guiers bi nga xam ne jàpp nañ ko ñeenti fan ci weeru avril Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen